ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يوبا ليتم سيد الحاج مالك جوب ñu xam ne mooy coordinateur régional kon ñooñu bu ñu leen tuddee rek tudd nañu fédération bi yëpp euh, ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp di nuyu sëñ Moustapha nga xam ne moom mooy jiite rajo bi di directeur bi Oustaz Mbaye Faye kadalik kon dañuy yemale foofu nuyoo yi waaye di wax ni liggéey bi liggéey bu am solo la boo xam ni jullit ñëpp a ko bokk ndax borom subhanahu wa taala dafa jàpp alquran mu nekk suñu lay ëllëg waaye tam mu bañ a nekk lu ñuy lay ëllëg loo xam ni day nekk suñu lu ñuy lay ci suñu kaw ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wasallam tënk ko ci ñaari kàddu ni alquran xujjatun laka aw alayk alquran saw lay lay doon ëllëg yowmal qiyaam lu ko moy mu yay la kon ñaari baat yu gàtt la waaye yu gudd la yoo xam ne tënk na dund nit. sallallahu alayhi wa wax ni jàngal leen seen njaboot téere bi yàlla bi allimu awlaadakum alquran ndax mooy priorité li ñu war a njëkk a jàng balaa lenn mooy alquranul karim ñi jot a ñam loolu xam nañ ci dara ñi ci école arabe yeeg français yeeg fu mën a doon ci àddina ñi nga xam ne ñoom la seen dënn jiitu alquran jiitu ci ñoom ñooñu moom ñooy jël raw gàddu ga mboolem ñu toog fii di ay professeur mbaa ay directeur wala ay directrice di ay euh, ñuy jàngale ci wàllu école xam nañ li may wax ña raw ci alxuraan ñooy raw ci école ya ñooy raw ci fépp kon loolu rek maanaam doy na sëkk ab mu nekk loo xam ni day wane texe fii ak ñu jëm kon loolu buñ ci woowee nit ñi woowu ñu leen ngir neexal leen waaye dañ leen woo ngir soññi leen ndax ku ci jëm war na la ku ci jëmul it war na la ndax daa bokk ci ñeenti borom bi subhanahu wa taala di laaj jàmb bi ëllëg yowmal xiyaam buñ duggee bàmmeel dinañ la laaj sa diggante ak alxuraan amul kenn kuy échappé te duñ la ko laaj kon bu ñu dee taxawal lu mel nii ci weer wii nga xam ne ci la alxuraan wàccoon rawatina biis bu tedd bii di laylatul qadr nga xam ne ci la alxuraan wàccoon yaakaar naa ni li war a tombe tombe na tey la anniversaire am doote sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon na ni da ngeen ko làmbatu ci fukki fan yu mujj yi waaye làmbatu bi am na beneen xadis bu jagleel ñaar fukki fan ak guddi ñaar fukk ak juróom-ñaareel gi muy tay jii su ko defee loolu lépp lu ci yàlla diggee yàlla ñu ko yàlla nangul te yàlla ñu dajeeg moom di encouragé sëriñ daara yëpp yëpp yëpp ndax euh, musaabaqa am na rek nga yebal say élèves ñooñu nga yebal war na ni ay champion lañ moo tax mbir mi dinañ mën a cité ni ah ñii de ñoo ci tane waaye ku teew rek wax dëgg yàlla champion nga kon ñu encouragé élèves yi bu baax itam ndax lii dañ ci amaat geneen yokkute yokkute gi mooy daara dina ci gisaat boppam ci wàllu ay aide yu jóge ci mbokki jullit yi waaye daara dina ci yëgaat boppam ci wàllu dolleeku ci expérience ci wàllu xam-xam ak wàllu nu ñuy jàngale alquranul karim loolu moom la shakka fi dalik ndax toujours daara yaa ngi ànd muy ittihaad bi di liggéey liggéey bu rëy di def ay formation di def ay ndaje di def cellule pédagogique ci côté bu mën a doon te lépp dara warulu ko lu dul alquran gën a jëm ci kaw waaye nag ñi ci jàpp muy yaayu daara yi muy baayu daara yi muy soppee alxuraanul karim ñoom ñëpp daara demul ñu des parce que jàng alxuraan dafa yaatu jàngale ko dafa yaatu salaat euh, salaam waxoon ni booy waaw salaat euh, salaam dafa waxoon ni boo xëyee nekkal di jàng bay jàngale wala nga nekk kuy jàng nekk ab taalibe di jàng wala nga nekk ñetteel ba mooy ku sopp alxuraanul karim te tey liñ fi gis nii tey wane nañ fi ni sopp nañ alquraanu karim teewaay bi cofeel la participation bi cofeel la ñaan gi cofeel la bëgg bi sax cofeel cofeel la ci alquraanu karim ñeenteel mu ne wala ngay diglu alquraan bu fexeel ba bokk ci ñeent yi waaye nee na juróomeel bi fexeel ba bu ko doon mooy jàngoo jàngalewoo soppoo digloo nee na alko rek yàlla ci yàlla musal kon euh, lii ni encouragement la pour xale yi jaajëfal leen soññ leen ba buñ delloo ca daara yee gën a góorgóorlu ndax dañuy ñaan yàlla fekk déwén insha allahu taala bokk ci yeneen euh, musaabaqaat yu mel nii ak yeneen ak yeneen insha allahu taala kon ñi ngi sant Oustaz Mbaye fii nii nga xam ne euh, xaddiwul tayyiwul tabaarakallahu yokkatul toujours mi gën di takk laxasaayam liñ ci def ci bis bi kenn xamu nu mu toll loolu luñ teg suñ bët la tey jii kon loolu tamit ak soññale ci mboolem jullit boo xamante ni nit a ngi ci rajo bi dina defal waaye tamit di la soññi di soññi boppam di la wan ne li ma lay woo maa la ci jiitu kon loolu ñëpp la ko defal wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin doon loo xam ne liggéey bi du lenn lu yokk coote ak yi seen wàllu njàngum alquran waaye nga xam ne waxtu wuñ ko wooloo man ko gis teg liggéey bi ci loxoom it yu rafet yu ne mu di ko jox kon ñu koy sant baax di sant mboolem ñi ñu rajo bi ñëpp di sant yaay daara yi di sant mboolem ñoo xam teew nañ fi di ñaan yàlla sunu teewaay yéen a doon sunu sippiku bàkkaar sunu teewaay yéen a doon sunu saafara tawat sunu teewaay yéen ci yàlla barkeelu ci li yëngatu sunuy dal nañu rajo bi ñëpp yenn yàlla benn leen jàmmal leen bu baax sagal leen ci lépp lu muy sagalee jàmm yenn yàlla yokk sunu fan ñaan réew yi yëngatu yi bari lool lépp loo xam ne yëngatu sabaan la yal na yàlla dafa ko fi yal na yàlla fi jàmm ak jàmm yal na yàlla fi jàmm ak jàmm wuy tawat yëpp yal na yàlla saafara leen ñu ne ci prison yal na yàlla leen ci jàmm delluwaat le seeni kër delloo ko anam jub boo ànd ak yokku yiw barke du baax alquran karim ñaan lante ndonga daara yi yal na yàlla daf leen mag mag yàlla teral ci alquran teral leen ci xam-xam teral leen ci wër teral leen wërsëg ñaan lante waa daara yëpp sagalante ngeen ñun yal na yàlla sagal leen ñi nga fii localité yi ñëpp yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla yokku leen sagal leen ci wér su wërsëg bu yaatu teraanga yu bëri yal na yàlla dafa leen ak yokk ñu ngi ñaan yàlla mboole ñu ñu rajo beeg ñëpp ñu fi teew ak ñu amul ñu teew fi ñëpp yal na yàlla dafa leen yokk yi amma macha allah gis nañ lool fi yow sa taxawaay rafet na lépp rafet na. di jiital ci nuyoo bi imaam yi fi teew yëpp di jëlaat nuyoo bi di ko teg ci lim imaam wala oustaz. Mbaye Faye ak ñi mu àndal ñëpp nuyu Ouma Ndiaye ak sunu yaay yi nga xam ne ñoo fi teew ak sëriñu daara yi ak waa alxuraan di yëkkati sunu kàddu rek ndax yiw moom ku la ci boole yaa war a sant ndax lu ñuy def dañuy jàpp ne suñu bopp la ñuy liggéeyal ndax lu ñuy def ci alxuraan ندخل في سلوه لولا فينا لي دخلوا بكن سبب مكرهون تخمن إن القرآن مم لوجي دف سن برام دين الكفاي كلول موتا أبنوجا نيو أندكو أبنيوم دنجتاي بنيو وأنا مو بربي دولو تيريب ورانا نشتيو وأنا كنا خمنا جامعنا فيم دولو موتا كأنه كتنك كم نقصرين جيدة وعيسون ما خمنا لب كتير خوب jiit nekk suñu kanam ñu ànd moom ci liggéey bi ndax moom la ñu Oustaz Mbaye booleel ak Babacar Ndaw ceet li ñu def nag wax dëgg yàlla da ciy sant tey yëpp yi ñaan nan ko gën a yokk ndax ñu lépp loo xam ne lii si social la ñun ku ñu ci woore dañ la fekk si rawatina lii nga xam ne moom la ñu defal xale yi muy alxuraan kon ñu ngi sant bu baax ñu yéen waru ñoo sant ñu ñoo leen war sant ci boole bi ngeen ci boole ndax am na ñu bëggoon a teew fii ñu teew wala ñu bëgg cee bokk te xamuñu nii def ba bokk ci waaye bu la ci boolee santal yàlla bu baax ci loolu waaw cër boobu ñun xam nañ ko ay ndongo daara lañ lu ñu ci alxuraan wala lu ñu defar rek ndongo tànk lii ñu ñu jox lu ñu dab la rek lu bokk suñu métier waaye ñun ku ñu xam xam ne ñun maanaam pionnier kii la ñu grenier wu alxuraan lañu. ndax ci daara lañu yaroo. dañoo jàng daara jàng alxuraan ba noppi door a dem école. bi ñu dem école ay mag ñoom lañu kon xam na ne ñuy wax oustaz nii mën na ma seede ñoo bokk fan dëkk te li may wax defe naa ne moom mën na ko a mën na ko seede kon ñun ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag bu baax Malick Fall ak Baye di yi ñoom ñi nga xam ne ñoom la liggéey bi nekk seen loxo président marché Grand Thiès wax dëgg yàlla. ñu def ci liggéey bu ama am solo ñu ngi koy sant bu baax ak waa Grand Thiès yëpp waaye di sant président Baye di Baye ci coordination bi nga xam ne ànd na ko ak ñi nga xale yi lii euh, Demba Ndiaye wax sunu doyen dañ koy bàyyi ci loxoom ndax ñaar niñ koy jox suñ ko joxee ci turu imam ci turu ustaas lañ koy jox waaye moom dañ koy bàyyi moom ndax ñi ko jox dañ koo mérito ñu ngi sant di gërëm ñu ngi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen nuyu ci yóbbantik imaam Asbara Ndiéguène mi nga xam ni moom mooy président ligue des imams et ulama de la région de Thiès waaye tamit di leen nuyu ci yóbbantiwu enseignant yi nga xam ni ñoom ak Mbaye Faye ñoo bokk benn école bu ñuy jàngale muy franco arabe Kër Daago bi nga xam ni man la yàlla nattoo ma jiite ko kon ñaari tànk laa fi doxe ñaar ñooñu ñëpp dañ maa yóbbante ndax Mbaye Faye bu xewlee cee sa xewle ndax moom musta tànkam lu kenn ci wooteem lu xew Mbaye Faye day teew si waye nak fan la gëna bëré téw moy ci ndajam l'islam mbay ci jërëjëf ñoo ngi lay sant le di sant wa Sud FM ñi nga xamni ñoom ak yow yéen and organiser li ndax bisu alquran la ku téral alquran yalla nga delloo njukkal ndax ku ne xamna ni alquran waxu yalla te wax sifatun min sifatil mutakallimi alquran melokaan la ci melokaanu yàlla yi melokaan nag buñ koy wax luy melal borom kon muy lu rëy lool alquran da ngay jàpp ne discours bi yàlla lañ fay wax te bu ñu dañuy discours de la nation bi nga xam ne président de la république daf koy wax tey ji guddi ñëppay xeralu ci seen télé kon nag fu ñuy jàng alquran ñëpp a war a ne teg lu xam ni yàlla mooy wax ci làmmiñu xale wala ci làmmiñu mag wala ci ñu góor wala ci làmmiñu jigéen kuy wax alquran rek da jàpp ni yàlla mooy wax kon war naa déglu muy téere bi nga xam ne mooy lettre bi mu ñu bind envoyé ñu ko ñu war a xam lan lañ ci ndax ku ñu bind leetar di nga xam lan moo nekk ci leetar ba kon ku jàngul alquran war nañ caa fekk sa doom muy jàng ku jàngul alquran yàlla na toll nga jàngi France wala leneen lu mu war a doon boo demee ba rëccu fexeel nga jël sa doom yóbbu ko ci alquran franco arabe yaa ngi fi daara yaa ngi fi jànguwaay yi bëri na lool. képp ko ne damaa rëcc lu ma jàngaloon alquran te yóbbuwoo ci njaboot kon la nga wax war nañ koo xoolaat kon nañ jël xale yi yóbbu leen ci alquran yàlla ji ñu jàng ko ñépp a war a fexe seen doom jàngi alquran senegal gi bu ñu bëggee mu baax fokk ñëpp jàngi alquran mag ñi ñoom ñu nga ca woon bu baax a baax toujours damay damay faral di wàññi ndeysaan oustaz xalifa xalifa Kebe استاذ خليفه غاي استاذ حسين جيتي استاذ نياسم باي ني سين دوم دنج لين جيل نيب داف لين تي القران دوغلو سين دوم سي لين تي القران نان لين دوغل تي سما بوك مي نوخ ليغي واخنا بن حديث بو ام سولو مو ين صلى الله عليه وسلم داف علموا اولادكم القران اغاليو كو نك واي لا سي توك موي ويعلمهم القران كل شيء su ngeen jàngalee seen doom alquran alquran jàngal leen xam-xam yi des xoolal ñi jàng alquran ñëpp jarul sax ñuy jàng yeneen yeneen yeneen xam-xam yi waaye yàlla def leen koy sol dañ koy xam da yomb ci ñoom lool kon alquran di kiis boo xam ne bi ku ci xiirtal ci njaboot jarul sax ngay wutiwaat kiis naan bindal leen kiis déedéet ku jàng alquran rek am nga kiis sam xel day neex kon nañ jàngal xale yi alquran ñu yar leen yaru diine delloo si les valeurs yi nga xam ne moom la ñu perte baleer yi nekkul lu dul ci diine lislaam nañu fexe yar xale yi yaru diine ndax jikko yaa ngi yàqu te bu jikko yi yàqoo réew mi yëpp ay ànd yàqu nañu delloo xale yi ci yarum diine lii mooy message bi nga xam ne imaam asbaro moo ma waxoon naa fexe jottali nañu yar xale yi yaru diine yaru diine nag paasewul jàng leen alquran ak la firi jox leen ay jikko yu rafet dell delloosiwaat valeur yi nga xam ne moom la suñu mag ñi xamoon bu ko defee réew mi jag ndax bu yàqoo ci loxo yi ñëpp la yàqu ñëpp woote jàmm ñu dund ci jàmm réew mi développé lii la ma waxoon naa ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu billahi mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di seen teewaay di leen jaajëfal ndax ku nekk rek si tànt bi indi nga yéene indi pas-pasam pour bis bi rafet may wax ni xale yi toog nii imaam wax na ko sànq danoo war def ci ñoom diine danoo war a def ci ñoom adi éducation ndax tey suñu société bii ñu ne bari na lu fi am mu naqari nu loolu ñàkk xam moo ko waral ak ñàkk jàng kon ku xamul demal ñu xamal la ku jàngul demal jàngi ndax lépp mu ngi ci alxuraan damay faral di wax naan nit ku nekk la muy yëngu su doon def su doon seet yàlla wala mu ciy defee aqulay taala yaakaar naa Sénégal tey dépassé na fii mais ku nekk suñu la dénkee dara boo ko deful na mu waree ba bu ëllëgee dërëm boo ci def ñu laaj la nga mën ko justifier kon day doy waar kon da xamul li alxuraan wax ci dénkaan da xamul li diine wax ci dénkaan kon xale yi tey bu nu bëggee société ëllëg bi baax foog xale yi ñu defar leen sëñ Saliou Mbacke sama sëriñ bi daan na wax naan soo bëggee am société bu baax da ngay defar tout tànk yi ndax tout tànk yi ñooy magi suba may jeexal rek di sant samay waajur di sant sama jëkkër di sant waa université institut universitaire de technologie di sant waa mairie Thiès Ouest di sant euh, Biram Ñaar yaayam waroon na fee teew xam naa dafa xaw a tardé muy Adja Rokhaya Diagne di sant tamit rajo Sud FM ndax moom moo yaatal kër gi ba ñu a def événement bi di sant euh, oustaz Mbaye Faye oustaz Mbaye Faye moom mënuma koo fay ndax ki ni kay baax ki ni kay liggéey ci yoonu diine koku mëno ko fay do def lu dul ñaanal ko yàlla may ko guddu fan ko andal wër ba limu nam ci li mu am ci lu wess weesu njortam asalaamaaleykum wa rahmatullah audu billahi min alcheytan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين إخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi fi teew ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel itam ci bëccëg bu am solo bii di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla def ci suñuy miisaanu xasanaat ndax doomu aadama day sonn rek di kër kër waaye la muy kër kër yi yal na doon lu koy jëriñ ëllëg te yaakaar nañ ne jataay bii dina bokk ca jataay yi ñuy gërëm ëllëg ca kanamu yàlla te nit nag lu mu yëngu ci àdduna na ko wóor ni am na ku ànd ak moom di téléviser ay yëngu-yëngoom yowmal qiyaam yàlla daf lay jox kaset bi ni la teg teg ko ci télévision bi nga jël commande bi dal di taal ñu la iqra kitaabak kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba ni la seetaanal sa jëf ya nga daan jëf ci àdduna tey yaay réglé yaay def lépp kon jataay bii kat bu nu ko yàlla wonee ëllëg yowmal qiyaam dina bokk ca jotaay yi ñuy bég yeneen ko fekk ay ati at kàddu yi du gudd lii ren mooy juróom-ñetteelu at bi ni ko ëmma waxee gis ngeen mbaar su ndaw sëli ci buntu rajo ba fa ne la nekkoon foofu lañ ko tàmbali woon ñu gisoon ni alquran am na ñu koy jàngale ci dëkk bi njàngale mu rafet te dem nañu ba léegi dañuy wax ni seen ñu bëri jàngaleetul jàngaleetuñu ñu bëgg a woon nit ñi ne am na daara yuy jàngale alquran ci dëkk bi ñu ne kon samedi bu nekk ñu waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk rajo bi ñu may ñu ñu mun ut ay ndongo jàng jàngaloo leen alquran suñu ko defee daañu xam daara yi fi nekk di jàngale alquran waaye itam daañu mën a jàppale waale daara yi waaye itam ñu mën a encouragé xale yi lii moo doon li taxoon ñu sos lii te dafa am lu wolof di wax ku mënta yéeg mën ne nag bés ku yéeg ba daanu comme ñun yoruñu daara waaye am na mbokk yu yor daara suñu defee lii woo ci ay nit ñu ñëw jàppale ñu ci loolu bokk na ci liggéey bi day mel ni ñoo ngi jàngale alquran fa tabarakallahu ñu tàmbali ko ak suñuy bokk ak suñuy xarit bi ñu koy tàmbali di gërëm bu baax soxna Astou Diouf mii moom lañ ko njëkk a wax mënuñu xale yu jigéen ya cay bokk man maa leen di wutal ay yére sëriñ jiite mii dégg ma annoncé ko mu ne ma groupement tailleur yi nekk Thiès yëpp boobu Ablaye Ngom moo fi nekkoon bu soobee yàlla bépp xale bu ci bokk daañ ko ñawal yére at moomu ñu def ko at ma ca topp ñu ne du ñaw du ñu yem ci ñawal yére waaye dañ leen di wutal ay dàll jigéen ñi wutal ay kol ñuy doog ñu waxtaan ceeg Adja Zeynabu Diop yal na yàlla yokk ak wéram yal na ko yàlla bàyyi mu mu dund téeméeri at kon wax leen mbir mi ay jigéen ñoo ci njëkk a dox seen loxo ñu wax ceeg Adja Zeynabu at moomu ba muy ñëw indil ñooñu lu mat ñetti rouleau tissu sëriñ yi ñaw ndongo yi ñaw jury bi ñaw ba fa nekk teg ci enveloppe bu diis ni mën nañu ñaw lool yi bàyyiwuñu bàyyiwuñu ba ren jii at mu ne moo may soññi balaa ma ko yóbbu benn leetar moo may téléphone ma fu ngeen tool man di dama leen déggu ren nga xam ni ku sabab ci def alxuraan kon Seynabou yàlla yàlla guddal sa fan liggéey la ciy jàppale ñuy dem di dem ba yàgg sama jarbaat bu baax muy soxna Marème Mbow ma waxtaan ceeg moom ma ne ko ah am na liggéey bu may def fële de su ma sañoon nga dugal ci sa loxo mu ne ma tontoo liggéey yàlla moom ku la ca woo mu ne ma maa la woon a si waaye waroon ma woon a wër si ni ma bu soobee yàlla lu ma ca def dinaa ko yokk mu nekk ceeg man su ma ko nee mareem li ngay def bari na mu ne ma tonton fi ma yemoon fi ma fi ma tolloon ba ma koy def xam naa ko fi ma toll léegi xam naa ko gis nga ñëwee daaw dafa ñëw ni ma tontoon la sa xel dal xaw ma kañ ngay fompati ay chaise waaye du doonati ma li sa kanam xaw ma kañ ngay fompati ay yu tilim waaye bu soobee yàlla loolu jeex na xaw ma kañ ngay amati bu rafetul waaye du mu tànt jar dinaa ko dinaa ko def kon Marème ñii li mu def sagal na samay mbokk sagal na samay xarit sagal na alquran yal na ko yàlla sagal yal na ba ko yàlla fàtte dañ koy ñaanal yàlla yal yàlla àggale aw yoonam di gërëm euh, sëñ daara yi ndax lii suñu ko bëggoon te ñoom jàppuñu ci du àgg fii sëñ daara yi ñoom lañuy ñuy waxtaan rek indi ñu gars yi waaye gërëm itam rajo bi ndax xam nañu temps d'antenne ni mu seere ñu may la presque une heure et demie ngay jàng alxuraan loo xam ne tey bu fekkoon ni tey dañoo dem ci benn jaaykat bu nekk ca marché ba benn commerçant wala benn patron jaay ko heure boobu ay millions lay doon ci weer waaye ñu bàyyi ko ngir alquran kon ñu ngi gën a waar a jot yëpp commencé ca Kamal bi sëñ Babacar Ndaw mi nga xam ne mosuñoo bàyyi sëñ Ëmma Ndiaye fa tabarakallahu soxna Bintu Gay mi nga xam ne mooy suñu jigéen nekk ci rajo bi moom itam loxoom musti jóg ci mbir mi kon daal كيف قرانو تانتي بي القران موتا غارانو تانتي بي يالا غيسنا لا يالا يالا فاي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك